الحمد لله الذي فرض الحج وجعله ميزة ليست في غيري من الفرائض فمن كان حجه مبرورا رجعك يوم ولدته أمه فكان ذنبه مغفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقره اعيننا محمد عبد الله ورسوله من بعثه الله رحمه للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا صلوات ربي وسلام عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi farital ci ñum lii nga xamante ne moom mooy aj mu def ko mu nekk occasion avantage bu rëy ci bépp jullit avantage boo xamante ne dafa ko ci yeneen farat yi nga xamante ni moom la gàll suñu kaw muy avantage boo xamante ni képp koo xamante ni dem nga aj ba nga defee ko ni nga xamante ni moom la ko alayhi salaatu wasalaam jàngalee bam ca noppee mu ne xuzu anni manasikakum roy leen ci man jël leen ci man ni nga xamante ni noonu lañu war a ajee képp koo xamante ni doxale nga ko noonu nee na yàlla nangul na la te yaa ngi mel ni liir bi nga xamante ni moo ngi gane si soo ko gane si àdduna ci set gi muy set ci bàkkaar ñuy seede ne amul kenn ku doon yaaram ci dëgg ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko amul ndenn amul nawle di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la mooy ki nga xamante ne mooy kii saral suñu xol yi ñun jullit ñi yàlla moo ko yónni mu nekk rahmatan lil alamin di yërmande ñeel xeet bi yépp di haadiyan di ki ñuy ginde doo masiran moom sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ñuy bégal ci lépp loo xamante ni mooy liy jóbbe nit ki biir aljanna wa nadiran waaye mooy ki nga xamante ni mooy ki ñuy xupp ci lépp loo xamante ni boo ko defee dalay yóbbu ci këru safaan ba yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ba ba keroog yàlla suñu borom di donn suufam si mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci jaamu yàlla bu rëy bi nekk suñu kanam muy aj suñu ujaaj yi yu góor yi jigéen yi waaj yépp yal na yàlla mottali seenu yoon te yàlla nangul leen aj mbokk yi yàlla suñu borom moo ko farataal ci alquranul karim mu ne walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istataa ilayhi sabila mu ni aj de maa ko farataal ci yéen waaye mu nekk benn yoon ci sa dund ci boo ko mënee benn yoon ci sa dund ci soo ko mënee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ni inna allaha kataba alaykum alhajj fa hajju faratal na ci yéen aj kon na ngeen dem aji ji ci képp koo xamante ni mën nga ko fa in azama ala alhajji alabdu fa alam anna lilhajji shurutan wa arkanan wa wajibatin wa muharramat yajibu taallumuha ala man araada duxul fi hadihi al amal aw fi hada al amal ñu xam ne nag ponk bu rëy boobu noonu balaa kenn di ci sóobu war na nga xam charte ya war na it nga xam ponk ya war na nga xam la nga xamante ni mooy la cay wareef ca la nga war a def waaye war na it nga xam lépp loo xamante ni lu xaraam la loo xamante ni aj gi nangu ko kon loolu faw da nga koy jàngi nga xame ko laata ngay dugg ci jaamu yàlla bu rëy boobu aj nag yàlla suñu borom dafa wax ni alxajju ashhurum maalumaat aj fenn rek nga ko mën a defee ci kaw àdduna bi moom mooy màkkatal mukarram amul feneen foo mën a tukki bu defe jee ko fa waaye it nekkul jamono ju ne neex ngay def ji aj jamono ji nga xamante ni ci ngay defee aj yàlla moo ko tudd ci alquran mooy jamono ji ñu nekk di ji weeru kori ak weer wa ca topp muy weeru digg ak fukki fan yi weeru tabaski yii mooy yi nga xamante ni mooy weer yi ñuy wax ashhurul maalumaat weer yi nga xamante ne ci nga war a mën a aj ana kan nag la ñu sàttal ci moom aj mu ni al muslim awalan jullit aj warul ci koo xamante ni du jullit mu ni tamit war na ci ab gor aj warul ci ab jaam ndax jaam la mu yor moomu ko war na it ci nga xamante ni baalig la ku majeur koo xamante ni islam togg na ko ay jëf lu mu defati dafay am bàkkaar kooku aj da koy war bu dee xale su demee aj ajam mën na nangu waaye wàccagu ko wala mu koy wàcci faw mu dem ba majeur mu dem aji ji waat war na ba tey ci nga xamante ni mooy ku am xel aj warul ci koo xamante ni amul xel maanaam koo xamante ni am xelam newu ci moom wa mustatian ci ki nga xamante ni aussi nekk na jullit nekk gor am ab xel soo amul kattanu aji ji kattanu wér ak kattanu alal joo xamante ni di nga mën a dem bàyyil sa njaboot dépense dem am paas bu la yóbbu indi maanaam billet wala nga dund fa tamit dund goo xamante ni doo fa dund dund tumuraanke loolu mooy aj istitaat yii su dajee ci yow aj nekk na loo xamante ni farata la ci yow bu ñu ñëwee nag ci ponk yi ponk yi mooy yi nga xamante ni jullit bi mënul matal charte yi ba pare dem te defu ko bu mu ci deful bu ne rek atam ajam ajam matul aj ba yàqu na ba ci njëkk mooy al ihraamu al ihraam nekkul sol bi ngay sol yëre yu weex yi rek bu dee góor maanaam woddu gi ngay woddu taraxlaayu beneen taraxlaay bi ci kaw yamul foofu bu dee jigéen moom mën na sol lu ñu ñaw bu dee góor boo xasee ba taraxlaayu ñaari taraxlaay yooyu noonu ama doo sol kawas doo sol gétlaay doo sol ay gants doo sol mbaxana mais bu dee nag jigéen mën na sol sol gu jot mën na weex comme mën naa bañ a weex waaye du muur kanamam du soli gant du soli kawas moom it ginnaaw col ko googu fi sa ihram bi di mate mooy nga defee ko ca miqaat ba miqaat ay béréb la yoo xamante ni mënoo koo romb te yéene wuloo mënoo koo romb te yéene wuloo te yéene gi nga yéene mooy aj gi nga fasa yéene aj loolu incha allah dinañ ci ñëw bu ñu toppee xutba yi ndax aj ay anwaa la am na ifraad am na qiiraan am na tamattu benn bu ci nekk incha allah dinañ ñëw ci lu mu lu muy laaj ala kulli xaal ponk bi njëkk bi nga xamante ni boo ko defulee sa aj matul mooy al ihram ginnaaw col ko gi egsi bi ngay egsi ci miqaat ñi jóge Sénégal war a dem Madina jóge Madina soog a dem Màkka avant ñuy egsi biir Màkka fa ñuy dal muy Zul Xulayfa ñu koy wax abaaru aliin foofu ngay wàcc julli fa ñaari rakka rakka bu njëkk faatixatul kitaab ngay tari ak qul yaayul kaafiruun ñaareelu rakka ba nga tari faatixatul kitaab ak ixlaas muy qul huwallahu ahad soo paree nga yéene wax ca kaw aj bi nga fas yéene aj te ca kaw nga koy wax bokkul ak julli julli da nga naan allahu akbar fekk fas nga yéene ko sa biir xol ak yeneen jaamu yàlla yi sa biir xol nga koy fas mais bu dee aj da ngay wax ca kaw la nga war a yéene aj kon ginnaaw bi nga defee loolu ngay soog a tàmbali nag sa labbayka jëm ca war waay danga ba ngay war war ala kulli xaal étape boobu noonu moom la ñuy wax étabul ihram soo ko deful sa aj matul ñaareelu rak ruknu bi ñaareelu ponk bi moom mooy wàcc bi nga xamante ni xujaaj bi wàcc na ko ca ca arafa arafa ab bërëb la boo xamante ñoom saa salaam moo ñëw ba ca foofu ca xajjatul wadaa mu ni fii yëpp ci arafa la bokk arafa googu yoon saa sala wax ne alxajju arafa aj de moom buñ koy wax arafa moo tax ñuy wax képp koo xamante ne aj jot na nga def ponk yi te defoo ara te defoo taxawoo ci yow mu la arafa noonu sa aj matul ba ci ki nga xamante ne dafa feebar ki feebar nekk ca hôpital ba inconscient même ba nga xamante ne àndul ak sa xelam neewtu fi kooku dinañ ko yab ci ambulance indi ko ba ca bërëb ba delluwaat ak moom pour ponk bi soog koo wàcc bu dee amoo oto dinañ la yeb ci hélicoptère hélicoptère dañuy yendoo wër ci kaw li tim lépp luy arafa pour delloowaat la lu ko may ponk boobu nag du mat ci yow kon ponk la boo xamante ne boo ko deful sa aj matul ruknu saalis bi ñetteelu ponk bi moom mooy ak tawaaf tawaaf dafa am ñetti tawaaf wala ñeenteel bi nga xamante ni tawaafu tatawu lañ koy wax mais tawaaf bi nga xamante ni ponk la boo ko defulee sa aj matul mooy tawaaful ifaada mooy tawaaf wër bi ngay wër kaaba gi ci bisu tabaski bi bu dee ni amul ci bisu tabaski bi fan yi ngay def mun naa soo fa jógee da ngay def sa tawaaful ifaada soo ko mën a dindi sa armal bi nga xam ne moo nekk ci yow ala kulli xaal bu dul tawaaful qudum bi ngay def booy soog a ñëw wala tawaaful widaa bi ngay def booy tàggatoo tawaaf bi nga xamante ni moom ponk la ci ponk yi moom mooy tawaaful ifaada ci bis boobu mu wax ci li nga koy def ñeenteelu ponk bi ci ponk yi nga xamante ni soo ko defulee sa aj matul mooy as-sa'yu dox wala daw bi ngay dox dox bi ngay dox bayna safa wal marwa ci diggante safa ak marwa muy bis bi nga xamante ni mën nga koo def asaa yu mën nga koo def ci bisu tawaaful qudum bi ngay soog a egsi dinañ ci ci ay leeral incha allah ci xutba yi di ñëw wala def bi nga koy def si nag ci bis bi nga xamante ne mooy tawaaful ifaada bi nga def ci bisu tabaski bi kon asaa yu bayna safa wal marwa dafa bokk ci ponk yi nga xamante ne soo ko defulee sa ponk sa sa aj matul te ni ñuy wàññee sept tours yi mooy yaa ngi tàmbalee ci jabalu safa war faa jóge dem marwa boo jógee safa dem marwa ci nga soog a am benn tour nekkul da ngay dem safa ñëwaat marwa muy benn tour mais da ngay jóge safa dem ba marwa muy sa benn ci wàññi nga jóge marwa ñëwaat safa muy deux noonu nga koy compter ba sa dernier tour marwa lay nekk mooy sa point de sortie nga am sept tour yoo xamante ni moom mooy ponk bi wàcc na la comme ni nga xamante ne aussi ci tawaaful ifaada bi noonu wax wër bi ngay wër kaaba gi yaa ngi koy tàmbalee ci xajarul aswad mooy sa point de départ mooy fi ñuy faral li foon ak diraay foofu ngay taxaw jàkkaarloog moom wax bismillah allahu akbar soo ko tàmbalee wër boo wëree ba tolluwaat ci point boobu noonu muy xajarul aswad ci ngay am benn tour noonu ngay defee say tour ba mu mat sa sept tour boo ko defee fonk boobu soog laa war soog laa wàcc kon yooyu mooy nga xamante ni mooy ñeenti ponk yi ñu wax ni mooy ponk aj am na ñu ci indi nag lu mel ni mazhab shafia indi na ci juróomeelu ponk moom mooy wat bi ngay wat sa karaw ginnaaw bi nga xamante ni kii def tamattu ñëw na def tawaaful qudum def safa ak marwa kooku mën naa watu dem ndax umraan jeex na foofu waaye ki nga xamante ne def xiiraan wala ifraat kooku du laalagum karawam lu dul dafa dem ba def tawaaful ifaada bi bi koy génne ci ci ihram bi kon loolu mooy nekk juróomeelu ponk bu fekkente ne ci mazhab shafia aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli di sëlmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat ci lenn loo xamante ni ujaaj bi faw mu xam ko bu dee ni ma nga nam ma defe ji li nga xamante ni moom mooy aj ñu koy wax alwaajibaat wareef yoo xamante ni kii aj faw da koy defaale mu ni an yaxruma muridul xajji aw al umra min al miqaat ay min al mawaadi allazi aynuhu ayyanahu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy sol gi ngay sol sa armal gi ginnaaw bi nga armalee ba pare nee na yéene gi nga yéene ca miiqaat ba kooku wareef la nekkul ne ca otel ba ngay soloo rek daal di dem wala nga soloo fu la neex dem waaye waajib dafa nekk lu war nga ñëw ba ci si fi nga xamante ne mooy miiqaat bi nga def fa sa yéene soo ko dem mu bokk ba tey ci wareef yi loolu soo ko defulee da ngay tuur deret alhadi mooy war ci yow ba tey almubitu ba arafa xatta garuba shams arafa boo fa duggee ci bëccëg ci zawal amatoo droit jóge ci yow mun arafa ci arafa lu dul ni dañ faa julli lu dul timis dafaa jot doo ko fa jullee nag fa nga jullee tisbaar ak takkusaan wàññi leen boole leen waaye timis nga fay toog xaar la fa ba mu fekk la fa nga soog a déplacé jóge foofu jëm musdalifa waaye doo fa julli timis képp koo xamante ne nag dafaa ñëw ci bëccëg rek dem te jant sowul kooku noonu dafay tuur deret mu bokk ba tey ci waajibaat yi al mubitu bi musdalifa ki nga xamante ne amul maanaam ku wér la nekkul ku feebar nekkul it koo xamante ne am na benn ngant boo ñëwee ba ci musdalifa da nga ko war a wàcc fa ngay fore say xeer yi ngay sànni muy say jamaraat ba pare da nga faa war a toog ba guddi gi xaaj soog faa jóge dem mun na wala nga toog fa ba fajar julli fa fajar ñaan ñaan ñaan ñaan soog faa jóge dem sànni sa jamra al aqaba al ula mu ne bu fekkente ne nag yow amoo benn ngant nga ñëw rek jàll dem kooku dafay tuur deret loolu dafa bokkoon ci wareef yi mu bokk ba tey ci waajibaat yi wat bi ngay war sa karaw boo xoolee Shafii feene da ko dugal ci arkaan yi mais boo xoolee fii nii ñoom dañ ko génne ci arkaan yi daf ko ci waajibaat waaye wareef la soo ajee ba pare te aj gi jeex nga war a wat sa karaw moo xam da ngay lelli tuuti sa karaw wala nga wat lépp te mooy li gën bu dee jigéen day dajale karawam gépp téye ko dagg ci lu toll ni un mu la mooy lu tolloog catu baaraam loolu dong lay wàññi ci karawam bu ko defee lépp lu ko xaraamoon ci ci bi mu xarmalee day daal di dagan ci moom da koy mën a def mu bokk ba tey ci wareef yi mooy sànni bi ngay sànni say say jamaraat muy jamra al aqaba al ula bisu tabaski léeg-léeg nit ñu bëri dañ ciy juum ci bisu tabaski bi juróom-ñaari xeer ya nga xeer ya nga foroon ci musdalifa du rek juróom-ñaari xeer ngay for dinañ ci ñëw cay détail incha allah waaye juróom-ñaar yi nga xamante ni ci bisu tabaski bi boo jógee musdalifa moom nga war a sànni ca mbalka mu mag ba mooy jamra al aqaba al kubra foofu ngay sànni juróom-ñaar benn par benn bokkul ak boo fa jógee dem makka def sa tawaaful ifaada bi ñu waxoon sànq mu nekk sa ponk dellu siwaat bi nga war a dellu siwaat ba mun na nga def ko trois jours maximum deux jours minimum des bi ngay des mun na da nga war sànni ji ay jamra boobu nag jamra yi da ngay sànni juróom-ñaar ca mbalka bu ndaw ba assuura sànni juróom-ñaar ci jamra al wusta mooy bi ci digg bi déplacé waat sànni ci jamra al aqaba al kuba ba nga sànni woon ci bisu tabaski noonu ngay def ba deux jours yi mat fa war nga def fa trois jours soog a jóge foofu nga xam ne moom mooy ca mun na kon sànni bi ngay sànni sa jamaraat yi dafa bokk ci waajibaat yi ci ayaamu tashriq yi bu ko defee ba tey dafay bokk ci waajibaat yi ab tawaaful widaa mooy tawaaf bi ngay tawaaf mooy wër bi ngay wër kaaba gi ci bi nga demee ba sa aj bi yëpp jeex mooy tawaafu tàggatoo bu njëkk ba tawaafu nuyoo la woon tahiyatul masjid nuyu ngay nuyu si kaaba gi bokkul ak tawaaful ifaada bi ñu waxoon ci ponk yi te foofu dañ fay insister ndax dañ ci gis ñu ci bëri ñoo xam nañ cee juum moo tax ñu koy gën di leeral tawaaful bi daana bi ngay dem bu tàggatoo ji kaaba gi kooku dafa bokk ci wareef yi kiñ ko teggil mooy soxna soo xam dem na ba war koo defi ji gis mbaax ndax tawaaf kaaba gi foofu nga ànd ak laab bu dee ni da nga war a sangu set laab boo xam sangu set da war ci moo war ci yow bu dee góor nga da ngay dem sangu set soog a ñëw tawaaf bu fekkente ni jigéen la nag du mën a tawaaf du mën a tawaaf bu dee ni aussi amoo njàpp da nga war a jàpp gi ba pare soog a tawaaf kaaba gi kon liñ ciy wax mooy kaaba gi pour nga tawaaf ko da ngay ànd ak laab ànd ak tamit nga sitrul awra mooy nga muur lépp loo xamante ne sa awra la ndax tawaaf kaaba gi manzilatu sola la yor dayoog julli la yoon saa salaam nee na li dox ci diggante tawaaf ak julli mooy booy tawaaf mën ngay waxaale mais bu dee julli nag doo waxaale kon incha allahu taala dinañ topp nii xutba bi ngir sàkku teef bi nga xamante ni sàkku nañ ñu ko ñu leeral ponk bu rëy bi nga xamante ni ci sa dund benn yoon yàlla na ne liman istataa ilayhi sabilan benn yoon ci sa dund la war beneen boo demaat rek ay nawaafil la bokkul ak ba tey koor gi nga xamante ni moom lañ génn benn weer la ci at mi mënoo ko defaat beneen koor booy koor ni kooru naafila mais koor bi nga xam ne wax chehru ramadan la koy wax boobu passé na julli ngay def tamit chaque jour cinq fois noonu la yàlla tëddee li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla yi kon lii nga xamante ne mooy ponk boo la war benn yoon ci sa dund bala nga ciy dem da nga war xam bu baax la nga ko war a dem te mu nekk àq nag ci ñi nga xamante ni dañoo xam ñu leeral ñi nga xamante ni xamuñu yàlla suñu borom wax ni fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun lépp lu ngeen def mu tudd jaamu yàlla bu leen ko làmbatu na ngeen ko gëstu ba mu leer te na ngeen ko gëstoo ci ña jàng rawatina ka jàng ba pare vivre l'expérience bi ndax mën nga jàng ba gis ci bind mi nii ne ah nii laa koy defee nga dem mu am yeneen réalité kon yàlla na yàlla yombal suñu ojaaj yi ñu dem jàmm jooxe ponk bi nga xamante ni mooy ponk islam juróom yàlla nangul leen seenu aj rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim arza allahumma arzuqna alhajja wal umrata waj'alhu mukaffiran li zunubina وارزقنا زيارة الحبيب المصطفى وشفيعته يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين عاما ثم إلى الصلاة يرحمنا الله